ne sunu sëriñ moo to jabate mi ngi daaru kenn la moo fi tuuti ay jikkoom yoo xam ne war na doom di nekk di ko rëy ci moom ndax mel ni moom lu jafe la. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne euh, ba tey yéen a ngi ànd ak ñun ci màggalu Daaru Muxti euh, édition 2019 ba tey itam ñu ngi ñëw fii ci kër Serigne Talla Mbacke moom Serigne Modou Khary nekk koo xam ne itam kenn ku nekk gis na ne li mu liggéey ci keppaaru maam Thierno Birahim ndax euh, kenn ku ne xam na ne maam Thierno Birahim euh, bi mu nekkee ci Daarul ci am na ñoo xam ne ñoom la àndaloon euh, jëm ji nga xam ne itam moom la ñëw tey jii fekk njabootam di nuyu bu baax Serigne Abdou Mbacke mi nga xam ni mooy xalifab Serigne Ziar ñu ñëw di jël si màggalu Daarul Muxti édition 2019. ki nga xam ne itam moom la ñu ñëw ci keppaaram tey jii doon koo xam ni dafa àndoon ak maam Thierno Birahim ndax wax naa ko waxati ko ñu bari ñi ngi ñëw ci maam Thierno ci maam Thierno Birahim waaye koo xam ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba moo la tànnalal boppam ngir nga ñëw ci moom loolu yaakaar naa ne euh, boo doon xool yoonu murit loolu euh, yombul ndax ni ma koy faral di waxee euh, Serigne Mourou Khary waajuram Serigne Mbacke Mati ku wëlalante woon la woon ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba moo ko daan defal ngan goo xam ne saa su ne ko daan defal ba wax na ni ngan gi xam ne moo ci mujj dafa ñëw sëriñ bi di ko gunge sëñ Mourou sëñ Mbacke Mati di gunge sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba sëñ bi mu ko joxee ndigalul mu yeweeku euh, mu wax ko ne ko damaa bëgg nga dellu ci kër ga mu wax ko ne ko damaa gis yow loo xam topp la moo ma gënal mu ne ko boo demee nag ma indil moor jëb ma fa nekk te te te Modou Khary ma fa nekk su ma tey ñëw na ngeen ma koy indil kooku nag muy sëriñ Modou Khary moomu tey jii ñoom lañ seet si ak njabootam tey jii euh, ki nga xam ne tey jii mooy xalifab sëriñ Talla Mbacke ñu fekk ko fi euh, sëriñ Talla ak i rakkam sëriñ Koso sëriñ Hamsatu borom kaay baax ak mboolem taalibe yi ñuy ziar comme ni ñu koy defee ci këru kilifa yëpp euh, ci màggal Daaru Mooti bi nga xamee Serigne Modou Khari itam indi nañu ko fekk maam euh, Serigne Touba Cheikh Ahmadou ba dem ci tukki bi ñu jox ko maam Thierno Birahim maam Thierno Birahim moo ko jàngal def ci moom li nga xam ni moom la def ci ñëpp wax na ne sax maam Thierno Birahim daan na wax ni maam Thierno Birahim daan wax ni maanaam da ko tudde woon Modou Khari borom texe gi boroom texe gi wax na ne benn bis euh, daan nañ doon nañ defar tàngal ataaya maam Thierno Birahim wax ci fere yi ne leen mu di xëy di képp koo xam ne wooy woo mu ñëw àndoog ñu naandoog ataay ji maanaam ëllëg yowmal xiyaam da nga ko naandoog moom euh, aljana kooku nag tey jii ñoom lañ euh, ziar si ak njabootam ndax euh, sëñ Mourou Xëri mooy waajuru Serigne Talla Mbacke Bari kenn ku ne xam na ko lim liggéey ci Daarul Muxti ñu dénkoon ko armée Daarul Muxti kenn ku ne gis taxawaay bi nga xam ne moom la ci taxaw tey jii ñu seet si ak njabootam Serigne Abdou Mbacke mii nga xam ne mooy Serigne Abdou Mbacke Talla ñu duppe ko Serigne Abdoul Khoudous moom itam fépp fu waajur yi ma tegoon tànkam ak maamam ya ca loolu rek la nekk ak rak moo ko rakkam yu baax yi mooy di jàngal xuraan di ko jàngale ak di dimbale lépp loo xam ne ñooy yitte yi euh, taalibe yi ñu taxaw ci njaboot gi nga xam ni ñoom la ñu seet si tey seen maam liggéey na loo xam ne fii ci Daaru Muxti yaakaar naa ne yombul nit ma maamam liggéey ko ci Daaru Muxti ndax Daaru Muxti am na jenn wopp joo xam ne amoon na fi ju naan wopp pes keroog bi nga xamee ne am na fi képp ku faatu fi nga faatu rek lay denc dafa jóge fii dem si koli nekk fa lu yàgg sëriñ Modou Xëri moo fi nekkoon ak ak ak taalibe yi foofu nag fa la fa la gëm-gëm mën a yem fa la pas-pas mën a yem fa la wóolu mën a yem kooku mooy sëriñ Modou Xëri kon tey jii euh, buñ seet si ak njabootam loolu yaakaar naa ni euh, lu am solo la te mu àndoon ak maam Thierno Birahim ca démb kon xam naa ñuy def dañuy dañuy jox sëriñ Kosso Mbacké mu indil ñu ci ci taarixu bis bi euh, a soññ waa taalibe yi kon sëñ Kosso yaa ngi ànd ak ak Ndayane Vision ñu ngi lay nuyu bu baax te di ziar kon sëñ bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah njaboot gi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Abdul Xuddoos mi suñu jëwriñ sëriñ Cheikh Asfay Mbàkke mi rakkam ak mboolem njaboot gi yëpp teg ci loxob suñu am satu mu jot lu ñu ko ci mboolem taalib yi fi teew yëpp mboolem jëwriñ yi fi teew sëñ a Jóob sëñ Àlla Jeng ak mbokk yi fi teew ñu Oustaz Ndiaye sëñ Modou Mbacké mi di suñu mbokk mu baax jógee ba Poroxaan mboole mboolem mbokk yi ñëpp ñu ngi leen nuyu ci turu sëñ Abdoul Khoudoss ak daayira bi nga xam ne moo fi ñëw nii di siyaare di Babou Rahma jógee ba Njaañ ci njiitul sëñ Amsatu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen siyaare ci turu sëñ bi tey jii nag li ngeen def lu am solo la ndax bis bi dafa bokk ci bis yi nga xamante ni ñun waa Daaru Muxti amuñu lu dul moom ndax bis la boo nga xamante ni bi Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jógee ci liggéeyam bu rëy bi mu liggéey woon dénkoon Cheikh Ibrahim borom daaru mu si njaboot gi ak ak lépp mu ñibbisee li mu ko dénkoon lépp Cheikh Ibrahim borom daaru sàmm ko ba ni ko Seexul Xadim bëggee woon mu defee ko noonu joxe ko ko bis boobu mooy bis bii tey kon bis boobu bisu mbégte la kon ñu ngi ñaan ci barke Cheikhul Xadim ak borom daaru Muxti ak barke waajur yi suñu borom dugal ñu ca mbégte moomu di sant bu baax nag ci teewaay bi di rafet bu baax teewaayu taalibe yëpp ndax kër gi moom ku fi doon ñëw di fi fekk sax sëriñ Mortalla Mbàkke di suñu waajur mu nekkoon ci jaamu yàlla ak liggéey nekk ci lu baax fonkoon njaboot gi fonkoon taalibe yëpp nekkoon ci li mu war a nekk ba suñ borom dogal mu jiitu tey fa mu nekk yàlla nañ ko suñ borom fayal suñ borom doon yërmaade ci moom te yoolu njëgal ci moom te yàggal fi jëwriñam ji sëñ Abdul Xuddoos ak mboolem ay rakkam ñu yàgg ginnaawam ba liggéey bi nga xamante ni moom la doon liggéeyal waajuram doon ko liggéeyal borom daaru ci kër gi ñu mën koo motali ni ñu ko bëggee te loolu itam am nañ ci xel mu dal ndax euh, képp ku doon ñëw fii ci kër gi daan fi fekk sëriñ taala ginnaaw bi fi bàyyi ko itam nga fiy ñëw xam nga ne li mu fi bàyyi ñi mu ko bàyyee yaafus yu ñu ngi taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la ngir sagal seen waajur woo liñ ciy defet lu mu rëy rëy xeeb nañ ko waaye lu mu néew néewit xeeb nañ ko ndax sagal suñu waajur wa rek ak dab ay ay bànneexam ak def bëgg-bëggam moom mooñ ci dugal ba tax na kon ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di sant sëñ Cheikh saw mi nga xam ne moo fi ñëw ànd ak Ndayane Vision ak suñu mbokkum taalibe sëñ Moustapha sekk ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di soññuwaat taalibe yi rek ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla gën a góorgóorlu ci liggéey gën a góorgóorlu ci boole seen bopp mu nekk benn ndax loolu mooy li sëñ bi bëgg ci ñun bu ñu boolee suñu bopp nekk benn rek lépp lu ñu bëgg ba koo liggéeyee sëñ bi danañ ko mën a def niñ ko bëggee bu loolu weesoo ñu sax ci jaamu yàlla sax ci liggéey ndax ñaar la yoo xam ne benn mënu dem bàyyi morom ji jaamu yàlla mooy tax a ci ëllëg liggéey mooy tax a jariñ fii ci àdduna kon sëñ baa ngi ñuy digal ñu ñëpp ñu sax ci te sàmm ci ñu ñaanal sëñ bi mu yàgg fi te wér ñu yàgg ci ginnaawam ak mboolem taalibe yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh na sunu sëriñ noo to jabata mi tuur ci ay jikkoom yoo xam ne war na jëpp doom di nekk di ko rey ci moom ndax mel ni moom lu jafe la